أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki M Media Group nuuru daare ni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonente boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xàq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc-rëcc di jël ziar boobu ak néew boobu rek di ko teg ci loxool suñu kilifa gi a cheikh abdul ahadi Mbacké ñaan yàlla yàggal ko ci suñu kanam bu baax a baax ba lim bëgg a liggéeyal moom xadim rasul lépp mu liggéeyal ko ko danu ànd ko ak moom di ziare bokk yépp nag di leen dokkeel ci at mu bees mi ñu dugg di ñaan yàlla subhanahu wa taala fekk ko ay déwéni déwén ay ati at yu bare bare bare yu koy su njortu te doon ñu dimbali ci lépp lu ñuy yombalal ak jaamu yàlla rek liggéeyal islaam mu jàpp nalal nu ko di jaay sayna muhammad sallallahu alayhi wa sallama tey kon ñuy jéem a ñëwaat ci liggéey bi rek muy xiwal gi nu yàlla defal muy M Media Group Nourou Darayni nga xam ne liggéeyal maam xaadim rasul rek la te liggéeyal maam xaadim rasul mooy liggéeyal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te liggéeyal sayduna muhammad mooy liggéeyal islaam liggéeyal islaam nag mooy liggéeyal yàlla kon mu nu yàlla defeen bi ay doomu aadama mu defal ñu tawfiix yi nu doon ay jullit waaye doon ay taalibe bokk ci xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu boole ñoo jëmm ju mel ni xaadimu rasuul mu gën a di ñoo jàppale gën ñu dimbali ci wàll googu loolu lu ñu war a sant yàlla la ci gépp ak cant nag te sant moom jullit la di cantam mooy rek xiwal yi la yàlla defal nga ndungu ne yàlla moo la ko defal waaye tamit xiwal gum mën a doon rek maanaam ngay góorgóorlu di ca jaamu yàlla sa kemtalaayal kàttan te loolu nag nañ koy bàyyi xel ci tàmbalee ko ci sunu cër yi nga xam ni moom lañu yàlla defal bu ñu jàpp ne xiiwal ak ab am am maanaam ab xaalis lay doon wala ay bagage rek yoo xam ne nit ki da koy am waaye am am bi mi ngi tàmbale sunu cër yi nu yàlla defal muy loxo yi nu yàlla defal dañ ca war a jaamu yàlla suñu bët yi suñu nopp yi suñu tànk yi bépp cër bu nu yàlla defal rek nanu xam ne alal la joo xam ne ji xewal gu rëy rëy la yàlla defal nu ko ñu war caa sant yàlla te lañ cay sant yàlla mooy cër yooyu nañ cay jaamu yàlla waaye buñ cay def lenn loo xam ne lii ak mooy yàlla la comme ni ko xaadim rasul digale mooy xaqiqatu shukri la daa man alima shuhuduna min zil jalali niama wa amalun biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yurdi wa ruknan yustabaan waaw nee na dëgg dëgg sant daal mooy nga nungu ne yàlla moom defal na la xiwal waaye xewal googu nag bu mu la ko defalee mooy nga jëfandikoo ko ci lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la te loolu ne ne ponk la boo xam ne bii jullit bu mu war a bu mu doon rek noonu nga war a jëfandikoo sa xewal googu la xam ne moom la la yàlla defal ngir nga delloo ko ak cant kon bu nu yàlla baaxee ñu am mbooloo mu mel nii di jéem a góorgóorlu ci waar woowu muy yokk sunu góorgóorlu dañ koy sant yàlla bu baax a baax di ndokkeel mu dungam ñëng bu baax a baax moom mi nga xam ne bii moo ko xalaat ba génne ko ci làmmiñam soññ ci boole ñu ci ba ñu ci gën a yokk suñu góorgóorlu li ñu jéem a góorlu ci jaamu yàlla ndax loolu nag lu am solo la lu baax a baax lu rëy rëy ci loo xam ne lii dafa bokk ci li jullit ñi war di def muy di xalaat lu baax loo xam ne lii xañ na yaa koy sos maanaam jëkk koo def mu doon lu baax loo xam ne lii soo ko defee ku la ca roy rek yow mi ko def da nga cee am sa tuyaabay bopp waaye ku la ca roy da cee am tuyaaba waaye itam roy googu ñu la cay roy da nga cay am tuyaaba yow mi nga xam ne mi tam yaa ko sos yaa ko jëkk a def ndax loolu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne ne képp koo xam ne kii xàll nga aw yoon wala sàkk nga aw yoon woo xam ne bi lu baax la maanaam nga di ko def ne ne def goo nga koy def yàlla dala ciy fay waaye képp ku la ci roy it yàlla dana ko fay pay ak boppam waaye yow moom mu ko def mu di ko roy ci yow itam yàlla dala cay fay ca loole jëmm jooju def muy wax ne man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil xiyaamati yàlla na tamit ne képp koo xam ne kii xotti nga yoon bu baax maanaam def nga lu baax ci lislaam fekk ñu bari xamuñu ko woon loole ñu di la ca roy ne ne danga cee am ab yool ba bés pénc waaye ku la ca roy it dañuy jël ca loole ñu koy fay di la ca fay lu na toll du yàq nag ca lañ koy fay dara waaye safaan ba itam ne ne ku ko def moom itamit fa la yàlla xaar mooy ay duma ak ay naqar ak itis rek yàlla nañ ci yàlla musal mooy wa man sanna sunnatan sayatan fa alayhi wisruha wa wisru man amila biha ila yawmil xiyaamati nekk noonu itam ku xàll yoon woo xam ne lu bon la nga def ko ne ne yow moom mu ko jëkk a def day ay bàkkaar rek nga cay amee ak ab sànje waaye tamit képp ku la ca roy day am bàkkaar am ab sànje te it dañu sànje jël bàkkaar yu toll ni yooya ak sànje di la ko dolli ci say bàkkaar yow mi nga xam ne bii yaa soos lu bon loole nga xam ne lii yaa ko jëkk a def ñu di la ca roy kon bu mbokk xalaatee lu baax a baax ci lislaam te muy liggéey bii ñuy liggéey ndax liggéeyal islaam dong la liñ ci yëngatu lépp kon barke boobu nga xam ne bii mooy barke xaadis boobu yàlla nañ ko ci yàlla defal ñun ñëpp di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom mi ko jëkk a xalaat itam ba xàll yoon wi xaadis boobu loolu ci yàlla di wax ci ku so xotti yoon bu baax rek ñu la ci defal tawfiq yooyee yàlla na ko ci yàlla defal tawfiq yu koy njortam te boole ñu ko ñun ñëpp di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon laaj bi ñu njëkk tey am rek mi ngi jóge ci Modou Ngom moomu jëwriñu liggéey bi dafay wax tey laaj limada yuqawimul muslimuna bil aamil hijri yi dane day laaj lu tax jullit ñi seeni dat maanaam seeni yittee jamono yi nga xam ne dañ koy date ngir bañ ko fàtte wala ñuy xam kañ lañ ko defal dañ koy jàpp ci at mi nga xam ne moom lañuy wax atum gàddaay ga maanaam loolu lay laaj lu tax jullit ñi tënku ci di xayma seen jamono ci lu ñu bëgg a xam kañ lañ ko defan muy ab date muy taarix ñu bëgg a xam kañ lañ ko defan jullit ñi war a tënku ci di ko jàpp ci at mi nga xam ne mooy atam gàddaay ga suñ ne atam gàddaay ga nag ci lislaam moom mooy bi Seydina Muhammad jóge Màkka ak ña ko gëman dem Madina loolu la ñuy wax atum gàddaay ga kon mu doon laaj bu am solo boo xam ne bii bu ñu war a yittewoo la bu ñu war a gëstu la lu ñu war a xam la ngir tënku ci weer yi nga xam ne moom la ñu wax weeri jullit wax dëgg yàlla jullit bu mu mën a doon dafa doon sa wërteef nga war caa tënku te bu ñuy xool loolu ak càggante dal na ci jullit yu baree bari yoo xam ne yii weer yi nga xam ne mooy weeri jullit sax mën naa am duñ ko xam at mii ñu ne atam gàddaay it xamuñu ne ci lañu war a date ci la ñu war a tënku di ci date seen xew-xew yooyu nga xam ni moom la ñuy date ci yeneen nattukaay yi nga xam ni moom la ñuy natte ci wàll googu su ko defee lañ ko ci tontu dañ ko naan kaana naasu qadiman yu arrixuuna bi waqaia kabiratin xadasat fa arraxa xawmu ibrahima bi naari ibrahima wa banu ismaila min bunyaanil beyti wal arab bi amil fiil xabla taarix al hijri yi xaysu wulida rasul sallallahu alayhi wa sallam fi amil fiil waaw maanaam xayma say xew-xew di ko date ngir bëgg xam kañ la xewan kañ la aman ne ne loolu moom naka jëkk bu yàgg ba tey nit ñi dañ ko doon def ndax ne ne loolu nag niñ ko doon defee di ca tënku di ca date mooy dañ doon xool xew-xew bu rëy rëy bu ràññeeku bu mag a mag a mag boo xam ne bi am na ci àdduna maanaam am aw xeet boo xam ne dañ naan ba nangam amee at ma nangam amee daal ñu jàpp ko di date ca at moomee bu ko defee lu mel ni am na jëmm yoo xam ne yi ay nit la ñoom jamono tey nag Seyduna Ibrahim maanaam ñoom ñu ngi doon date ca sawra sa nga xam ne si moom la ñu taalan ngir dugal ci Seyduna Ibrahim nga xam ne loolu xew-xew bu rëy rëy la bu ràññeeku la ci àdduna ñuy jàpp ne at ma nga xam ne mii ca lañu dugalan Seyduna Ibrahima ca sawra sa ñu di ca date di ca tënku waaye bu dee banu Ismaayila ab giir goo ko xam ne xam dañoo bokk ci Ismaayil ñoom itam lañ daan date mooy tabax ba nga xam ne bii moom lañ doon tabax kaaba gi tabax bu bu jëkk ba mu doon xew-xew bu mag a mag ñoom itam ñu jàpp ko di ca date seeni xew-xew waaye arab yi ah arab yi ñoom liñ doon date mooy at mi nga xam ne mii waa jooju dëkkoon Éthiopie benn waaju saay-saay la ñëwoon wut armée boo xam ne bii ay ñay la ko formé woon mu doon amul fiili muy armée boo xam ne bii ay ñay la waaju ji yor yu baree baree bare ak la mu àndoon ci ay nit ngir ñu ñëw ne dañuy màbb si kaaba ga nee na loola ba mu amee arab yi ñoom itam dañ doon date ci ne at ma nga xam ne mii mooy atam ñay ya atam ñay ya mooy bañ ab waajoo ji jógee Éthiopie dem Makka ngir di màbbi kaaba ga fekk ay ñay la yoran gis nga kon nga xam ne tënku maanaam date lu cosaanu la lu yàgg la waaye laata Seydina Muhammad di gàddaay daal ci yooyu lañ doon tënku gis xew am xew-xew bu rëy rëy bu ràññeeku ñu sukkandiku ca di di ca jàpp seen dat yooyu ñuy jël ci at moomu ñu wax atam ñay ya nga xam ne ca la Seydina Seydina Muhammad gane àdduna loo tax ñoom arab yi dañ doon wax naan at ma nga xam ne mii mooy atam ñay ya ca la Seydina Muhammad gane àdduna su ko defee jullit ñi nag jullit li ko war mooy muy date ci aay bi nga xam ne bii ci la yàlla tudd weer yi ñu mën ne mooy weeri jullit yi jullit bu nekk danga ko war a xam di xam weer wu nekk fa mu tollu ci ay fan nga di ca date say xew-xew ndax yàlla ne ne inna iddata shuhuri indallahi isna ashara shahran fi kitaabillahi yowma xalaqa samawati wal arda minha arbaatun xurumun zalika diinul xayimu yàlla ne daal weer yi ma leen tànn leen jullit yi fukki weer la ak ñaar te ne ne lii maa ngi ko tànn tegal leen ko ba ma bindee asamaan yi ak suuf yi ne nag ngeen tënku ci loolu ci weer yooyu nga xam ne man moom laa leen tegal mooy li gën di muttali seen diine ngeen di ca def seeni dat di ca jàpp seen xew-xew yooyu nga xam ne yii moom ngeen di yittewoo ngir di bëgg a xam xew-xew yooyu kañ laan su ko defee ne ne wa xarisa wa xarisu mun su bidayati taarix alhijri an laa yaamalu illa bihi ne ne nag weer yooyu bi ko yàlla wàccee ci alxuraan muy fukki weer ak ñaar yooyu ñu koy tudde weeri jullit yi ne ne jullit ñoom dañoo xër daal di cay tàbbi jàpp ko di ca natt seeni dat yooyu nga xam ni moom la ñuy def muy at taarixul hijri yi muy lañ ca jàpp ngir di ko dote mooy ñu jàpp gàddaay ga kañ la tàmbali ñu di ca date seen xew-xew yoo nga xam ne yi moom la ñuy am weer yooyu nag mooy bi ci jiitu ci atum jullit mooy weer wi ñu nekk mooy muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumaada al ula jumaada thaniya rajab shaaban ramadan shawal dul qiyadati dul xijjati muy fukki weer ak ñaar niñ koy waxe mën nañ ne aw tamxarit diggu gàmmo aw gàmmo rakk ji gàmmo rakkaat ji gàmmo maami koor ndey koor baraxlu koor aw kor yi diggu tabaski aw tabaski muy fukki weer ak ñaar yoo xam ne mooy weeri jullit ñi nga xam ne ñu baree bari dañoo sàggal ba weer yooyu mënuñu koo xam ci arab bi mënuñu koo xam noonu ñu koy wax ci olof te loolu moom warut ab jullit jullit bu mën a doon da nga war a xam weer yi ci arab bi boo ko mënul nga lijjanti ko ba xam niñ koy waxee ci olof bi noonu te nga di ca date say xew-xew yi nga xam ne yii moom nga am di ko date kon buñ ne jullit ñi dañuy tënku ci atum gàddaay ga war nañoo xam loolu fan la tàmbalee ak kan moo ko jëkk a def amara alxalifatu omar ibnu alxataabi bi wadee taqwimin jadid seydina omar ibnu alxataab mooy ki nga xam ne kii moo jëkk a teg ne nañuy date ci nan wut beneen dat datukaay bu bees maanaam di date ci beneen bu bees boo xam ne bi dañ koy tànn moom seydina omar nga xam ne mooy saanil xulafa ar-rashidin mooy ñett ñaareelu xalifa bi bi fi yonante bi jógee moo topp ci abubakar abubakar jëkk nekk xalifa seydina omar topp ca seydina omar moo ne nañu wut beneen dat bu bees nag jéem dañ noon atam ñeya ca lañuy dati nañ wut bu bees fa jamaa ahlal mashurati fa xaala baaduhum arrix bi mabaathi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa xaala baaduhum arrix bi hijrati rasuli sallallahu alayhi wa sallam seydina omar dafa dajale ñi mu doon diisool bi mu nekkee xalifa ne leen daal dama leen di laaj seen xalaat ku ci nekk ñu wax nan nga bëgg nu nuy datee ñenn ñi ne ko da ngay jël bi bi ñu jamono ji ñu yónnee yonante bi nañ jël dat boobu di ci date ñeneen ñi ne ko léedéet nañu date ci bi yonante bi gàddaaye màkka dem madina maanaam ñu daal di koy tegal ñaar yooyu ñenn ñi ne ko daal da ngay jàpp kañ la yonente bi gane àdduna bu ko defee ñu di ca date ñeneen ñi ne ko de nañu xool kañ la yonente bi gàddaay màkka dem madina ñu di ta ñu di ca date omar ibnu xatab ne leen bal nu arrixu bi hijrati rasuli fa innal hijrata farxun bayna al xaqi wal baatili omar ne ñaar yi ngeen wax yépp day yépp a baax waaye bi ci gën a am solo nag moom lay jël mooy gàddaay nga xam ne gii moom la Seydina Muhammad gàddaayee Màkka dem Madina ndax mooy xew-xew bi gën a am solo ci àdduna bi gën a rëy ci lislaam te mooy yonente bi ak ña ko gëman gàddaayee Màkka dem Madina ngir loolu moo jàllale diine ji moo jàllale islaam bi su gàddaay googu amutan maanaam islaam bi du jàll ndax moom moom gàddaay googu moo nag moo taqale won nu dëgg tegal nu ko waaye tam won nu ay caaxaan tegal nu ko ba nu mën a nekk ci dëgg gi mën a moytu lépp loo xam ne li ay caaxaan la bu doon doon gàddaay gi kon loolu du am kon Seydina Omar ne kon nanu jël gàddaay gi maanaam di ci date kon loolu bokk na ci li sabab ñuy date ci atum gàddaay gi lene loolu nag ci bi Seydina Omar ibn Khattab nekkee xalifa la waaw ginnaaw bi nga xam ne bii maanaam nekk na ci xilaafa gi ñaari at ak genn wàll daal loolu tombe nag rabiul awal ñu koy wax weeru rabiul awal muy weeru gàmmo ci bi ñu gàddaay ba am fukki at ak juróom benn gis nga ko bi ñuy jël atum gàddaay ga di ci date ne ne booba gàddaay gi am na fukki at ak juróom benn ñuy doga waxtaan ak Seydina Seydina Omar doga waxtaan ak saxaaba ya ba ñu tànn atam gàddaay gi di ci date noonu yi ne ne bi Seydina Omar ibnu Xattaab tànnee atam gàddaay ga nag ñu tàmbali tàmbalee ko ci weer wii muy muharram maanaam ñu ne daal kon muharram mooy weeru tam xarit wi ñu nekk mooy weer wi jëkk ci atam jullit léegi bi muharram dee ba am fukki fan ak juróom benn déedéet moom muharram moom ne ne ca ba ba gàddaay ga demee ba am fukki at ak juróom ñaar lañu tàmbali ci muharram muy weeru tamxarit bi di date ci atum gàddaay gi kon daal loolu lenn la ci tënk loo xam ne lii tax na jullit ñi di date ci at moom nga xam ne mii mooy atak atam gàddaay gi waaw loolu ab tënk la ci rek waaye lu yaatoo yaatu la loo xam ne lii mën na gën a yaatu loolu lu bare bare bare beneen laaj bi ba tey mudu ngom moo koy laaj mu ne yulaaxazu an aksara man yuxrijuna zakata يخرجونها في الشهر المحرم فهل إخراج زكاة يجب في هذا الشهر أم لا mu dungom di laaj ne dafa gis ne wala dañuy gis ne ñi ëpp ci nit ñi suñu génne azaka ci weeru tamxarit lañu koy génne muy laaj ndax ndax génne azaka moom dafa nekk loo xam ne ci weeru tamxarit rek lañ ko war a def wala loolu lan moo ci lépp atte loolu moom lañ ko ci tontu mooy dañ ko naan azakatu tajibu ala man malaka nisaaban ida xaala alayhi alxawlu alhijri min waxti mulkihi lin nisaab wal xawlu bi annaha tajibu fi lmuharram aw gayrihi la asla lahu laaj bi mu laaj ci wàllu asaka woowu dañ ko naan asaka daal dafay war képp koo xam ne kii am na lim biñ ne ku ko am asaka war caa génne waaye lim boobu itam nit ki da koy am denc ko yor ko ba mu am ci moom am at maanaam am ci moom fukki weer ak ñaar muy dog a mën a génne asaka jooju jéem nag dangay am kiy am lu mat a génne asaka xamuñu ci wan weer la koy amee maanaam sharia moom tërlut ne asaka nañ koy génne ci wenn weer waaye dane yow miy génne asaka daal boo amee lu mat asaka mu nekk ak yow fukki weer ak ñaar daal war nga caa génne asaka maanaam jéem ci fukki weer ak ñaar la tënku nag maanaam man nga ko amee ci weer wu ne ndax soo ko aman maanaam li ñuy génne asaka soo ko aman ci weeru koor kon bu koor ga dellusee nga koy mën a génne bu dee ci weeru gàmmo nga ko am bu weeru gàmmo woo ñëwee nga koy mën a am ba ci weer yépp jeex kon daal ne ne bu fekkee ne am na ñu ne asaka dañ ko war a génne ci ci ci ci tamxarit daal jooju wax moom maanaam amul cëslaay boo xam ne bii mën nañ koo tegtaloo ndax loolu nekkut loo xam ne lii lu wér la ndax génn asaka ñu ngi ko tënk ci li ngay génn asaka maanaam na am ak yow am at nga dugg a génn asaka jooju te am am boobu nga koy am tënkuwut ci wenn weer mën nga ko am ci weer wu mu na doon weer woo ko amee rek bu weer woo dellusee ca ngay génne asaka joojee beneen laajam bi ci toppaatit muy muudu ngom ba tey day delluwaat rek ci ca dat ba la ñu doon wax muy jullit ñi dañoo war a tënku ci di date seeni xew-xew ci atum gàddaay ga muy wax nag maanaam di jël say mbiri say xew-xew di ko date ca atam gàddaay ga ban wàccuwaay la am ñeel jullit bi dañ ko naan fal muslimuuna lahum taqwimun xaasun allazi yaudu bihi ila dikri muhimmatin xallabat wajha al ardi wal insaniyati ila axiri dëhri dégg nga nee na daal jullit ñi wàccuwaay bi ñu war a jox jël seeni xew-xew di ko date ca atum gàddaay ga maanaam jël seeni xew-xew di ko date wàccuwaay biñ cee war a am mooy yàlla da leen a defal foo xam ne fa lañu war a jàpp di fa def seeni dat mu nekk loo xam ne lu ñu leen jagaleel la nga xam ne loolu leen lislaam tegal da leen di delloo ci ñuy farliku lu am solo loo xam ne ne bi mu amee rek dafa wëlbati suuf si ak lépp loo xam ne ak nite la da ko wëlbati nam melan mu soppi ko def ko na nga xam ne na la na la war a mel ba keroog àdduna di jeex te mooy ñu tënku ci di date seeni xew-xew ci atum gàddaay gi ndax ne ne gàddaay googu bi mu amee daal dafa mel ni suuf si dañ ko wëlbati waaye tamit dafa mel ni ak nite dañu ko wëlbati te ne loolu itam luy sax la ba keroog àdduna di jeex dañoo wëlbati suuf si nag ni ñu koy déggee mooy laataa ñuy gàddaay mën nañ ne suuf si dafa lëndëmën lool bi ñu ga bi ñu gàddaayee dem Madina suuf si daal di wëlbatiku leer nañ ñi ak nite itam laataa ñuy gàddaay di dem Madina dafa manqué woon lool ci àdduna bi ñu gàddaayee nag dem Madina ak nit tàmbali di dund di soppeeku nit ñi di dund dund nga xam ne gii moom la doomu aadama war a dund te mooy dunduk lislaam mooy suuf si dafa wëlbatiku bi ñu gàddaayee waaye ak nite itam dafa dafa wëlbatiku yor beneen xar kanam bu bees wa taqwimu alhijriyu al islaamiyu yarmuzu ila alhijrati nabawiyati sharifati min makkata ila almadinati nee na nag ngir ñuy date nun jullit ñi ci atum gàddaay nga xam ne gi gàddaay ak lislaam la ne loolu day joxoñ di junj ci ne gàddaay nga xam ne gi moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay jóge Makka dem Madina dafa am solo lool dafa rëy lool dafa ràññeeku lool xaytu assasa rasulu sallallahu alayhi wa sallam nawaata dawlati l islamiyati allati ma labithat wa ansar quwatan alamiyatan uzma ne ne ndax gàddaay googu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def fondement bu dëgër boo xam ne bii bi mu demee Madina dafa daal di tëral ab état ak nguur goo xam ne gii ci lislaam la ñuy dund nga xam ne saxut lu yàgg rek dafa gaaw lool ci mu daal di mujj doon li nga xam lii mooy kattan gi gën a am doole ci àdduna muy état boobu muy nekk état bi gën a màgg bi gën a am doole ci àdduna bi ne ne loolu dafa am solo lool gàddaay gi ci wàll googu dajee am solo lool ne ne gàddaay googu am solo gi mu am solo ne ne tataqawwa wa tatafawaxu ala aqwa quwatayni alamiyatayni bi dalika alwaqti wa huma alfurs war ruum ne ne gàddaay gi day bi mu amee ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo gën a am puissance maanaam ñaari réew yi nga xam ne ñoo gën a am puissance gën a ëpp doole ci àdduna gàddaa gi daa ñëw gën leen a kowe ëpp leen doole gën leen a dëgg te mooy furs ak rom waa furs ñi ak waa rom ñi ne na jamono jooju maanaam maanaam mën nañ ne àdduna bi yépp ñoo ci tegan tànk ci wàllu am kàttan ak am doole di ko jëfandikoo waaye bi yonente bi gàddayee Madina ànd ak saxaaba ya dem Madina rek bi ñu demee ba teg seen état ñoom seen noonu ñu doxale ci lislaam te Madina ne ne yàggul dara rek foofu ci Madina ñu am kàttan goo xam ne gi dafa tiim kàttan ak ñi nekkan ci àdduna ñépp te doon ay boroom ay doole yoo xam ne yii dañ fay nekkan ci kaw suuf di fi dundee lépp loo xam ne lii mooy seen intérêt rek mooy seen njariñ mooy la leen neex mooy dëppoog seen bànneex kon wàccuwaay boobu nga xam ne bii gàddaay gi am na ko ab jullit da ko war a am ba yittewoo ko ba di ca jéem a doxal ay mbiram yi nga xam ne yii moom lay jàpp ngir bañ koo fàtte kon jullit bi war naa jox wàccuwaayu di date ci weer yi nga xam ne mooy weeri weer wi ndax gis nga booy xool fukki weer ak ñaar yee ma doon wax muy weeri jullit ñi maanaam ci weer wi lañ koy natt moo tax mu nekk fukki weer ak ñaar te it maanaam weer yooyu dañ ko fixé ci ñaari date lay doon muy yi weer day nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yeneen yi di nekk fanweer weeri jullit yi moom du weesu foofu maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lay doon wala mu nekk fanweer waaye bu dee yeneen weer yi nga xam ne ci jant bi lañ koy natt da nga gis muy nekk ñaar fukk ak juróom-ñeent wala mu nekk fanweer day dem ba nekk fanweer ak benn gis nga loolu kon dafa am ak runge goo xam ne gii faaw da ciy am ci weer yooyu waaye bu dee ci weer yi nga xam ne mooy weeri jullit ñi loolu du ca am ndax moom dafa fixé wu ci ne ñaar fukk ak juróom-ñeent lay doon ak fanweer ba tax na gis nga bu ñuy xool sax weer yi nga xam ne moom la ñu natt ci jant bi day dem ba day ëppee bu dee atam la day ëppee at mee atam jullit lu mat fukki weer ak benn lu mu néew néew at moom dina ko jiitoo atam weer yi ñuy wax ne mooy weer yi jullit yi su ko defee ne ne kon weer yooyu nga xam ne yi dañ koy natt nag ci ci weer wi te mooy weer yi ñu ne mooy weeri jullit ñi ne ne yooyu moom lañ doon jëfandikoo di ca date ci jamono yi nga xam ne yi ci la wax yu gi doon wàcc ci sayyiduna muhammad maanaam jamono ji jibril ñëw di indi wax yu gi maanaam di indi li ko yàlla yónni ci yonante bi nee na jamono yooyu ci weer yi jullit yee ma doon wax ci lañ doon date waaye itam li nga xam ni mooy réewi arab yi tamit ñoom ñépp weer yooyu moom lañ doon mas di jëfandikoo ndax ne ne fa inna mawaidal munasabaati wal ibadaati diiniyati l islaamiyati allati tu'tabaru juz'an ra'isiyan min xayaati kulli muslimin mutadayin walati tushakkilu ba'daha juz'an min arkaani l islaam ka sawmi fi ramadaana wal xajji fi zil xijjati kaana tuxaddadu binaan ala al ashhuri al xamariyati ne ne lépp loo xam ne ab xew-xew laan ak lépp loo xam ne ak jaamu laan yoo xam ne yii dañ koy doon aju dafa aju ci jaamu yàlla goo xam ne gi ñu ngi ko tegan ci lislaam ne ne dañ doon jàpp ne daal loolu lu am am solo laan ci dund ak bépp jullit boo xam ne bii ma ngay fonk diineem di jaamu yàlla ci lislaam jooju te ne ne lii nga xam ne lii moom la ñuy wax ponki lislaam yi lu mel ni koor gis nga dañ ko fixé doon ko def ci weeru koor muy ramadan waaye bu dee añ makka la itam dañ ko fixé woon di ko def ci weer wi ñu wax weeru tabaski muy zil xijjati kon ne ne weer yi yépp kon dafa nekk loo xam ne ñu ngi ko tënkan di ko jël ci weer yi nga xam ne mooy weer yi weer wi weer yi ñu natt ci weer wi bu ko defee lu mel ni gàmmo itam nga xam ne fii rabiul awwal lay doon muy weeru gàmmo ni ñu koy waxee ci olof moom itam dafa tënk woon ci weer yi nga xam ne ci weer wi lañ koy jëlee waaye itam lu mel ni korite ak tabaski yépp ak tamxarit yépp gis nga ne ne ci weer yooyu lañ ko mës a jël ñoom di ko jëfandikoo di ko date ci weer yi nga xam ne moom la tombeel ñoom juddu ñu jëkk ña ci loolu lañ doon dund ngir jox wàccuwaay date ci at mi nga xam ne mii mooy atam gàddaay ga ndax lépp day dellu foofa ndax bi weer yi jiitoo gàddaay ga itam bi dee fixé ne nañu date ci weer gàddaay gi weer woowu dafay dugg ci biir weer yi nga xam ne yii mooy weer yi jullit ñi kon daal bokk na ci wàccuwaay bi nga xam ne bii jullit bi war na koo jox atum gàddaay googu di ci date ay xew-xewam mooy nene alal muslimina an yaatanu bi taarixihim wa an laa yuarrixu bi taarixi xayrihim li war jullit ñi daal mooy ñu yittewoo di jël seeni dat di ko def ci dat bi nga xam ne bi mooy atum gàddaay ga waaye waru ñuy jël yeneen dat yoo xam ne yii ay ña ko sos man duñu ay jullit dunduñu lislaam na ne loolu ab jullit waru koo jël di ca date te booy xool loolu moom dafa dal jullit ñu baree bari ñoo xam ne ñii fi mu ne lépp loo xam ne lii dañ koy date rek maanaam ca yeneen yoo nga xam ne yii ña ko sos duñu ay jullit di ca tënku jullit ñu baree bari foofu la ñuy dem di fa tënku ci seen wàllu date boobu te loolu ne ne warut ab jullit jullit daal li ko war mooy mu jox wàccuwaay atam gàddaay gi xam weer yi nga xam ne mooy weeri jullit yi di xam fan ya nga xam ne lépp loo xam ne da koy date rek danaan lii daal mi ngi xeween weer sàngam ci bés sàngam ci nangam ci atam gàddaay gi comme niñ ko tàmmee ci yeneen nattukaay nga xam ni moom la ñuy nattee nee nag wa minal musifi xaqan an yaadila aktharul muslimina al yawma an taarix al islami al hijri ila taarixi nasara almiladi allati la yamuttu ila diini islaam bi sila ne ne nag li ma wax léegi rek mooy ne ne métti na lool ñu gis ne li ëpp julli ñi boo leen di seetlu dañoo bàyyi taarixul islaam muy di date ci atam gàddaay googu daal di dem ci date ci date bi nga xam ne bi moom la nasaraan bi teg nasaraan bi teg te mooy at taarixul milaad yi mooy loolu ñuy wax naan juddu Seyduna Isa ñu di ca date nga xam ne loolu nasaraan bi moo ko teg te ne ñooñu ko teg maanaam amuñu diine islam benn relation boo xam ne bii ñoom jéem nañ ko lijjanti ngir ku cay nekk di ca date man ca amee leen loo xam ne lii luy yokk sa diine la wala lu yokk sa jaamu yàlla la te ne li ëpp ci jullit ñi foofu la ñu jéng aw fa di ko datee te loolu ab jullit da ko war a moytu su ko defee at taarixul hijri yu huwa shiaarul ummati l islamiyati fa ida tanasat l ummatu hatha shiaara fa huwa tanasiyun li shaxsiyatiha ne na daal wàccuwaay bi ñu war a jox atum gàddaay ga yittewoo ko mooy nanu xam ne atum gàddaay gi daal mooy sembalub jullit ñi maanaam mooy seen xàmmikukaay bi gën a wér bi gën a am solo ñu war koo jàpp ne ne loolu nag bu ko xeet wi fàttee maanaam bu ko jullit ñi fàttee nañu xam ne fàtte googu ñu koy fàtte la mooy dañoo fàtte seen personnalité maanaam dañoo fàtte dayo bi nga xam ne bii moo leen yàlla defal ci wàll ko nga xam ne gii cër bu rëy rëy la muy gàddaay goo nga xam ne gii Seydina Muhammad mi ngi ko jóge woon Màkka ak ña ko gëman dem Madina nga xam ne bu islaam jàllee rek gàddaay googu moo tax mu jàll ndax bu jàllutan rek maanaam islaam ji foofa la yem te bu boobaa àdduna bi moom kon ñépp dañuy wedd yàlla nekk ci loo xam ne lii lu neexut yàlla la wala iyaasu billaahi yàlla nañ ci yàlla musal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.